ca Balla Gaye 2 alias cukkili ak booy bu ñu wax cukkale eh ku mën <laughs> eh ku mën eh eh, eh eh eh Balla Gaye bàyyil booy bi les délires de Balla Gaye 2 non ah, bi dawul de eh eh eh booy Balla Gaye eh, eh ko. Şok ko, doot ko. Eh, eh, boy. Eh. <laughs> Hey, le, hey, le teknik de Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 le technicien. Sentir, eh, eh, Balla bal Balla Boy, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, Balla Boy, bay. <laughs> Eh. Wa mais kiri chocolat, hein? Ah? <laughs> hey loo nar. dinaa la booleel giri booroo xoolal yow giri ragalul ah giri ragalul de. dinaa la boole koo may boole. père ban. waaw mais avance bi ñu bëgg a delloo nag <laughs> non <laughs> Balla Gaye maa ngi waaye non mais xoolal Balla Gaye super forme cheet tet tet non man kii man kii man kii defoon naa ni jeexal na non man kii defoon naa ni jeexal na barki rasulullah man pour man cukkali jeexal na. Ah, ah, seet bal ngay foo jëm. cukkali foo jëm. mais nga jëm yow nii instant bi saal. looy préparé. préparé woon dara yow nga am ko maanaam préparé woon dara wala comment bi taxawagul. mais foo jëm ni entraînement. mais combat bu taxawagul yow noo koy entraîné. Ah, bi Père ne dañ ko dellu 10 millions. waaw ndax suñu père la. père xam nañ ji kon foog mu bëre. non la ah, ji daa bëgg daw génn de nee na neex bëre naqari bëre. non man ñuy waxuma ko mais tamit xam nga ni. Euh. loolu foog ngeen bëre. waaw mais xam nga bëre